tey nag damay wax JS 144 JS 621 JS loolu nekk plateforme boo xam ne boo ko tapé ci sa portable nga yor euh, nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo réseau Orange da nga jot benn plateforme boo xam ne daf lay dugal directement ci tuubaa ca kanam. boo bëggee dugal 1000 francs boo bëggee loo bëgg a dugal rek bu soobee Sëriñ Tuubaa di nga a barkeelu ma jàkkaarloog sama sëriñ nag sama mbokk Sëriñ Babacar ma jàkkaarloog Sëriñ Babacar Lo di kenn ci membre yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi fii ci seen exposition bu yanj bi nga xam ne moom la ñu def ci kanamu jumaa ji euh, Sëriñ Babacar Lo Tawfekh Production mu ngi lay nuyu waaw euh, ñu ngi lay fay bu baax Sëriñ Guédé di nuyu waa Tawfekh Guédé bu sa ñëpp nag jërëjëf euh, ñu ngi dafa mel ne ay panneau lañ fi dañu fekk ay tableau yu bari yoo leen def tableau bi mooy tableau 1 loo ñu ci mën a leer jërëjëf sëñ Guédé euh, tableau yi li ko waral mooy exposition bi nga xam ne moom la ñuy amal ci màggalu Touba gi ngir gën a mën a wane liggéey Touba ci kanam tableau bi nga taxaw nag manees naa wax ne rek mooy li war a jiitu ci lépp te mooy luy tax Touba set nekk ville boo xam ne day bokk ci dëkk yi gën a set ci réew mi dëkk bi nag set naag setut ni mu mel ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko loolu yi ma waral Touba ci kanam tàmbalee ci ab liggéeyam jënd lu toll ci juróomi camion jébbal ko Cheikh Mountakha moom Cheikh Abdoul mu jébbal ko Baye Fall yi ngir ñu ci setal dëkk bu sell bii di Touba loolu la ñu ko def ci atum 2018 lii nga gis ci suuf ñi nag moom ay ambulance la yoo xam ne dañ ko dimbalee sapeur pompier bu Touba bu dee bu ci des nag moom boobu moo ñu nekk suñ poste de santé bu Touba Lansar ñaari oto yi nga gis itam ay avion la yoo xam ne day fay wàllum lakk ku ne xam ne ne ci Touba bari waan na barab yoo xam ne bu daan lakk temps bu yàgg-yàgg dana ko am ngir intervention mën a am yeexaay googu na waral na Touba Ca Kanam fop ñaari camion yoo xam ne day def lu bare bari ci ay litre ndox ngir di mën fay lakk yi di ko. lii bu ñu ko doon xool ni euh, lépp lépp cotisation bi xaalis bi financement bi ko def lépp lépp ci ngafak euh, Touba Ca Kanam ci ñaari millions murit weer wu dee ñaari téeméer weer wu ne 2 milliards at bu a liggéeyal a ne bii ñu jàkkaar lool wa ardahu jaal arda dañuy def panneau bu ne rek ñu seet benn bayit ci Matlaboul Fawzeyni boo xam ne dafay firndeel li Touba Ca Kanam di sàkku te lii lépp mooy ay bayit la yoo xam ne sëriñ bi ñaanoon na ko boromam ci dëkk bi jëmee ko ci Touba loolu itam Touba Ca Kanam taxaw ngir jëmal ko ne sax Muntaxa daa bokk ci ay waxam lim ñuy wax mooy am na yaqin yaqin la am nee na ci ne léegi gëm na ne Touba Ca Kanam mooy jëmmal la sëriñ Touba doon ñaan boromam ci ma eh, te te ndax wa rahmatin wa saatin kulli awaan daa mel ne eh, yéen moom da ngeen di concrétiser waaw macha allah <laughs> tabaarkalla fii eh, wér-gu-yaram lu am solo ndax ku ne xam ne ne wér mooy lépp loolu moo war a Touba ci kanam itam tànn ñeenti xibla ci Touba tànn bu Touba Lansar moo nekk nii moom lañ jëkk a am nañ kër gol am nañ ba bërin kon lii lu noppi la lii du lu ñuy. lii moom noppi na ba pare ba tàmbali ñu liggéey kër gool itam tàmbali na ba démb barki démb lañ ko doon inauguré Cheikh Mountakha yebal fa Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ba liggéey ba itam tàmbali nañ ca bu dee kër gool ak Bobarin Bobarin ak euh, Daarul Khadim nag moom yooyu nag yaakaar naa fii gàmmu insha euh, allah lu toll ci milliard ci ay poste de santé yaakaar naa ne ku bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa yoon a goog fee gis fii de gis naa baati a taalum daa mel ne lu jëm ci wàllu xam-xam jàng ak tafahum fikra ci daara yi wàllum jàng ne ku ne ku ne xam ne ne sëriñ bi bokk na ci lu doon ñaan boromam mooy dëkk bu sell bi di Touba doon dëkk boo xam ne fépp fay doon laxasaay dem di fa jàng ji mhm. dana wëlbatikuwaat laxasaay yu di fa jàng si muy yéene sëriñ Mountakha loolu nag macha allah euh, sëñ Mourtada maa ngi waat fii ci fii dama fay gis euh, lu jëm ci wàllu CSS lu jëm ci euh, ndimbalante waaw ndimbalante ndimbalante moom moo sas yoonu murit yoonu murit jàppal dimbalante la moo tax Touba Ca Kanam am commission bu ñu tuddee commission sociale muy dimbali nit ñi ci ñu war a mën a faju di dimbali hôpitaux itam bërki démb rek ci safar gi bi ñu ko tàmbalee fopp nañ benn ambulance oto jébbal ko waa banque de sang te mooy ñi nga xam ne dañuy wuti deret di ko denc ngir bu ay soog accident amee itam ñu mën a dimbali ñi nga xam ne yitte woon nañ deret bañ mën leen cee ban bu dee ci wàllu social koo xam ne tey masalan dafa am problème tawat ju metti wala yooyu moom day ñëw ci seen siège social euh, social wala nu sëñ Mota muy jaar loolu yi sëñ Mota moom sëñ moom sëñ moo ko jiitee ànd ak waa commission sociale képp koo xam ne am nga cas social moo xam ndimbal la moo xam itam lu jëm ci wàllum euh, wér-gu-yaramam la dañuy jaral waa Touba Ca Kanam bu ñu fa ñëwee jël sa numéro sa adresse yëpp ñëw seet si la lépp lu war ceew itam lañ ca man ndax duñ mënuñoo wax ñëpp waaye daal li ci lañ ca man dees na ko def lu mel ne weeru koor tam bu dikkee dañu fa ab ak sukkar tànn ay famille yaatoo yaatu def nañ ko daaw jéeg def ko ren te itam ren jii incha allah fas nañ ko yéene def ngir dimbali famille nga xam ne incha allah fii ma gis nii dama fee gis xànjar xaalis euh, gis naa baatu ar rizq al yusru ñaari baat yi yaakaar naa contre al usru waaw foofu mooy li ñu wax léegi rek dañuy seet jamono bu ne tànn ay béy ci mën a fausé ni rek ndax lépp loo fi gis rek baa nit di ko sàkku lu gën ci dundu nit lu nekk rek sëriñ bi ñaanoon na ko boromam te wax na ne laataa mu ko ñaan borom boromam may na ko léegi nag Touba Ca Kanam la yittee mooy fexe ñaan ko kooku nangoo ci ñoom rek mooy seen taxawaay. macha allah tabaarkalla yaakaar naa sëñ Murtada sëñ Babacar Lo mi ma àndal lépp dina leer de Euh, maa ngi fii ci ndoxum Touba lu ama am solo lii moom yaakaar naa Touba ñu bare bare bu ñuy wax lool moom mooy wax ji am solo. waaw moom moom Touba moom ci ndox mi damaa jël sax ñu naan matut ak mat na waaye ndox mu baax rek mu ñu war a mën a jëfandikoo Touba ñëpp koy teewoo ndax li ëpp ci ñoom ndox mi ñu am sangu lañ ci waaye force am nañu ko ci bàyyi def ñu ëpp ñun tam lañ jënd am ndox ngi di ko jëfandikoo Touba ci kanam li yitteem na mooy na ndox mi doy fépp nañ amum ndox ci biir dëkk beeg santaane itam ci màggal am solo dépanne lenn ci ay forage yoo xam dañoo am paan lu ci mel ne bu Baxdaad ak bu Daaroom ak bu Madiana waaye tamit wut ay taux itam ngir dimbalee ko ci lenn ci santaane yi nga xam ne amuñoon am ndox xëccaleen am ndox bañ mën di ko jëfandikoo man di am ndax ndox daa bokk ci dundu doom mënta ñàkk masha Allah tabaarkalla sëñ Babacar fii gis naa fii al Ikhlas daara sunna wa man jan min bidaa yaakaar naa fii de wàllu sell moom mu xam naa mooy li ñu doon wax rek sëriñ bi moom defar nit ak koy teel day yar nit ki jàngal nit ki xamal nit ki itam ba nga mel melokaan ab jullit war a mel ab taalibe mooy nit ku complet daal moo tax ji lépp rek Touba ci kanam ci bàyyi macha allah macha allah Touba ci kanam bàyyiwul dara fii ñëw nañ dafa mel ne daara alxuraan lañ fekk njàng mi lu jëm ci njàng mi luy seen taxawaay ba tax ngeen boole ko seen waaw moom nag Cheikh ni mbooleem naal yi nga xam ne samay kilifa naaloon nañ ko danaa ko mottali waaye na sama naalu bopp mu ngi jëm ci université bi loolu moo waral bi mu ko tàmbalee Touba ci kanam fop 100 millions tàmbalee ko liggéey ba fa fa itam bâtiment boo xam ne valeur am mu ngi toll ci 800 millions moom lañ ca defal nii bâtiment boo xam ne valeur mu ngi toll ci 800 millions boo ko de 100 yi nga xam ne itam moom lañ tàmbalee woon liggéey Touba Ca Kanam lépp moo ko jël en charge liggéey bi itam ma ngay dox te fas nañu yéene buñ njëkkut a àggalee gën a baax la kenn ndax sëriñ bi daa am ñun yaakaar yaakaar ci dara du ko dara loolu itam la ñuy jàppee ci daara yi sëriñ daara yi danañ tànn at mu ne lu mu néew néew to mat ñaar fukki daara ak juróom-ñett lañ tànnoon daaw ren yokk nañ ko ba daanaka ñeen fukki daara euh, lañ leen defal itam mooy seet lu ñuy tëwoo moo xam mbaar la wala ay wanag la defal leen ko ngir seenu nekkin ak nekkin doo nga itam mën a ñoom yéen de yéenay dëkk bi war dub lahal xayra min al jihaati sitti wakfi anil afaati mooy niñ ko doon waxee sëriñ bi daal bàyyiwu dara lépp a ngi ci nekk fii leeral Touba Touba ku ne xam ne ne waa léegi sancaane nag sëñ bi lu mel ne ay umul xam nga dafa mel ne lamp yi it ñaareel fu mel ne umul xuraa ci biir de saam nag daa mel ne dégg naa ne xaw ma def ngeen fay lamp waaye umul xuraa moom lamp yi nag moom Touba ci kanam daaw dafa wutoon ay lamp ngir buntu kër bu ne di ko jaayante ren nag génne nañ benn enveloppe bu 50 millions jëndoon ci ay lamp waaye retard da ci xaw am ci port bi waaye am nañ yaakaar lool ci ne dana dikk avant màggal waaye ba nañ koo mën a monter màggal jàll waaye daal fas nañ yéene fépp fu ab pot nekk danañ fa monter am làpp duñ ca waaye itam campagne doomu itam ba kenn ku nekk sa buntu kër kër dugg fukki lamp juróom-ñett ma ilaahi maskani Touba abar kii mooy bàjjeni dëkk bi moom ci ngeen di dox moom lii moom mooy Touba ca kanam moom mooy ku xam Touba ca kanam min nga ko baat boobu far <laughs> loolu mooy lii fan ndoxum taw mi ndoxum taw mi loolu moom yaakaar naa waa Touba mat nañ ci seede Touba ca kanam li mu jëf ci ndox mi ci manque ko waaye tam ci ràkki sel yenn ci tali yi nga xam am jafe-jafe waaye itam sëkk mbedd yi boo demee Madiana Mbaar yi trente kër ñang bi da nga xam ne Touba ca kanam ba fii may ngi ci terrain bi ngir lan fexe rek ba mbedd yëpp yi nga xam ne dañ woon ñu mën koo sekkartiwaat ba nit ñi dem beeg dikk mën a yomb nag ku ne xam ne bokk na ci li ngeen di waajal ndax xam am ndox ñaareel Touba suuf su bari si tax na kenn mënu fee defar leen lu loolu moom dëgg la waaye nag moo war a kanam nank-nank rek waaye lépp xam nga lu buñ xawee yeexub dox lu ñu ko yóbbee rek mooy bu ñu defoon weer wala ñu am 2 milliards du ñu sëkkal kenn am mbedd waaye dañuy dañuy. loolu ñoo ko war a joxe murid kenn ku ne yëgal na rek bu ñu nee 2 millions de murid yaa nga ci biir bu bu matagul te ta nga toog jàppan li ko teemat ci nga bokk. <laughs> gis yi dañoo wut ay pompe yoo xam ne ci la ñuy pompe ndox mi wut nañ ci ñaari pompe waaye boole ci itam camion boo xam ne mooy tonn mooy tonni ban mi ndax société bala ñoo sëkk ñu dañuy tonni ban bi ba mu set ma door a fab ndox mu bees suuf su bees itam def ko ci kawam. macha allah sëñ Babacar macha allah miskin yi salli minal fujaari moom leer nañ ñi moom noonu alal ahli ma in lii mu nekk sëñ Talla dafa mel ne ñaari panneau yi ñoo ñu dese lii lan lañ fi bind naatal Touba muy ci wàllu ville verte. sëriñ bi sax da koo wax bañ koy présenter projet bi wax na ne loolu dara ëpp ko solo ci dëkk bi ku ne xam ne ne garab daa am lu muy def ci dundu nit ki environnement bi itam bokk na ci li koy sàmm mooy ay garab dëkk bi naat ñu bëgg Touba nekk ville vert loolu yi moo tax Touba ci kanam tàmbalee ci. jël li tàmbalee ci entre bu Touba ba ci ancien garage bi jël valeur lu mat 30 millions dépensé ko ci mooy garab yi ngis ñu jëmbat ko fa di ko arrosé itam wut ay nit ñu koy saytu grillacé ko itam 3 kilomètres aller 3 kilomètres retour waaye yëmuñ ci itam sëriñ bi jox ñu lu mat juróomi junni ci ay xay yoo xam ne mbooleem penc yi ñoo ngi ko ciy samp buntu ko itam ko ciy tëwoo tàndarma yeeg garab bi gu yaabeeg lépp daal li fa fas yéene daal mooy Touba bokk ci dëkk yi gën a naat ci réewum Sénégal sëñ Babacar lii mëntoo na ñàkk lii lan la ni fii yaakaar naa moo ne conclusion bi li ñu doon wax lépp moo nekk kon Touba ci kanam. hôpitaux yi ndox mi jàppale sapeur mbalit mi lépp. te nag ñuy wax nag mbokk yi te ñuy wax nag mbokk yi euh, Touba ci kanam ñuy wax nag mbokk yi mboolem li ngeen fi dégg nii li ci ëpp ay réalisation la yoo xam ne jot nañ caa dox ay jéego yu am am solo kon nag ñi nga xam ne ñooy déglu dégg nañ sëñ Babacar li mu wax lu nanga xam ne yow mi joxewut yow mi bokkut ci liggéey bi yaa loo mat loolu mat bu ko ñëpp déggee noonu. bu ko ñëpp déggee noonu noppaloo ku mu doy daal li li doy nit ki mooy. ki fi nekkal Serigne Touba moom liggéey bi doy na ko. ca tàmbali ba juróom-ñeenti murid la daan def ak moom muy fukk la wax ne maay tegal sama bopp benn tegal juróom-ñeenti murid am yéene te ñaari at mujj yi nag juróom-ñeent fukk murid ak juróom-ñeent lay jaayante ak jëmam ja ko dimbalee daara itam jënd na ci téeméeri basang dugal ko ci biir social bi Touba ci kanam daal ki ci jiitu ci jàppaleem ak ak wóoloom ak gëm gëm ko gëm Cheikh Mountakha doy na ci référence yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëñ Babacar kon nag ñu lay sant baax Tawfekh Production